Touba pour lancer journée mondiale de lutte contre la tuberculose tuberculose mooy saxat su bon doñ xamante ne dana sonal nit ñi lool ñun Sénégal comme adduna bi yëpp ñu dugg si xeex boo xamante ne dañ ko war a gañee avant 2030 fexe ba tuberculose génn si adduna Sénégal nag war si jouer rôle bu am solo te ñu mën ko ñu ne nag si journée bii ñuy lancé tey dañu jël mbir mi dénk ko ñu xamante ne am nañ kaddu si réew ku am kàddu si nag moo ko xamante ne leader nga pour que nga mën a gunge askan bi ba képp koo xamante ne feebar nga te xamoo ko wala nga feebar te faju joo ñu yóbbu parce que mbir mi li si gën a jafe du ñu ñu xam déjà te ñuy faju li si gën a jafe moo ñi ñu xamagul wala ñi xamante ne xam nañ leen mais yóbbu ñu leen leader yi nag lañ demandé ñu jàppale si liggéey boobu ñu jël Touba lu tax ñu tànn Touba nag si mbir moomu parce que déjà Touba ville Carrefour la boo xamante ne vraiment ñu fi daje bëri na lool ñu yaakaar ne waxtaan na ko lu mel ni dana am solo mais aussi Touba dëkk la boo xamante ne si dëkk yi dëkk dëkk leader la bon nag puisque mbir mi dañ ko dénk effectivement leaderu réew mi pour ko ñu porter donc combat boobu yaakaar naa ne choix boobu aussi choix bu am solo la ñuy wax ne nag Touba. li ñu fi soxla en matière de santé ñu ngi siy dox ay jéego yu am solo bu ñu toogee ba léegi bi ñëwee yax wan nañu ay poste de santé poste de santé yoo xamante ne dañ leen dañu waxoon ne ñu gën a jàppale askan bi pour def ko ay sant de santé mooy yokk seen jumtukaay yokk seen ressources humaines loolu def nañ ko ba pare poste yooyu yëpp léegi ay sant de santé lañ affecté nañ fa ay médecins ba pare ñu ngi relever plateau médical bi loolu dafa am solo li ñuy defar mooy euh, ñeenti hôpitaux yu mag yu ñu nar a commencé en deux mille dix huit am na boo xamante ne commencé nañ ko déjà si biir Touba loolu lu am solo la dans quinze jours ñett yi ci des mooy Sédhiou euh, Kaffrine ak euh, Kédougou danañ leen samp pour que liggéey bi démarre loolu nag loolu la ñu chef de l'État son excellence le président Macky Sall dénk ci mbiru santé parce que li ñu bëgg mooy sénégalais bu nekk. boo amee tolof tolof si wàllu santé ñu mën la jël en charge faj la fajin bu mucc ay